monsieur le maire siyaar naa ñu ngi lay delloo ziar bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi lay delloo ziar. tey ñu ñëw sa dëkk li ko waral mooy Sidi Diakhaté euh, production tey tëgg làmb ju mag fële ci Mbour euh, boole la ci maanaam ci parrain yi tey boo amoon tey wax jooyu yóbbante Sidi Diakhaté di ko yóbbante amateur. waaw tout d'abord di di remercier population département de Mbour ñi nga xam ne ñëpp taxaw nañu pour réussite làmb ji nga xamante ne sunu xarit sunu soppe. sunu nitu bopp muy Sidi Diakhaté mi nga xamante ne yàgg naa di tëgg ay combat ci département bi muy combat yu réussir mu tëggal ay doomu ngexoo yu fee bëri ji itam ak doomu département yi muy sax si ñun muy loo xam ne aussi lu rëy si ñun mu jël làmb ji aussi jagleel ñu ko kon ñun duñu def lu dul rek taxawaay taxawaay bu rafet taxawaay boo xamante ne itam taxawaayu xarit lay doon taxawaayu dëkkandoo lay doon taxawaayu mbokk lay doon moo tax Sidi Diakhaté ma ne département bi fayuñu ko. département bi vraiment paré non aussi pour accompagner ko ci lepp lo xamanteni ne nii mu ngi koy def ci walu lamb té lolu yàgg na ko fee tëgg aussi ñu ngi koy naan lamb ji ba mu réussir mu réussir ko ci jamm suñu xel dal na ci lamb ci di jaxate bi ci département de complicité ak waa Ngexoox ma ngi ñëw léegi fekk la ci biir jakk ja ngay sëdd la ay góoroo ki tangal complicité boobu. waaw dafa di ah ku dëkk ak nit ñi rek nit mënu la mënoon gën say mbokk ndax lu tax mooy nit amul lu ñuy mbokkam te ñun nag amuñu lu dul dëkk bi nga xam ne mooy Ngexoox xamuñu aussi lu dul population Ngexo ak population Sénégal maanaam yenn yi ay ndombal tànk rek la mais bu delloo ci booy booy bi nag ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nag ñoo bokk lépp nag ñoo bokk suuf si ndox mi looloo tax tey kenn du gën say mbokk ah mën nga tànn sa mbokk rek mais gën sa mbokk moom amul moo tax toujours nag nga gis ñu jaxasoo suñuy mbokk ànd ak ñoom ci lépp loo xamante ne nii ci wàllu àddina la ci wàllu yoo xam ne jëflante la dugalante génn rek looloo tax nga fekk ba ñu may sama benn set léegi ñu daje fa mbokk yëpp ñu toog waxtaan ànd bokk mbir mi bokk bànneex yombal ko alhamdulilah rabbil alamin loolu tax ñu jaxas sax suñu mbokk te. jërëjëf euh, mbokk internet yi gis ngeen waxoon nañu leen ko def nañu ko tey nag ñoo ngi fii Mbour ànd ak le grand promoteur Sidi Diakhaté le promoteur di raay ñëw fi tey mu indil ñu fi combat yu neex day xale yu bëri yu mën a bëre gis ngeen gune yi Mbour yaa ngi nii tey Mbour ak xewle dañu ànd ñun ak yéen dund ambiance kon ñun ak yéen daga rak bàyyi leen lii mbaa dóor mu daan du am mbaa dóor mu daan du am arbitre génn cirkante bi arbitre xoola gars yi bëgg nañu Caterpillar cokkaas na jegam jegam mbaa loolu daanu jegam jegam ni ngay xeexe doyuma da eh, jegam jegam rañaan na eh, jegam jegam daan na Caterpillar Sidi Diakhaté. Hmm. gannaaw bi ñu la nuyoo euh, ñoo gisandoo euh, situation bi ban explication ngay jox euh, askan bi. en tout cas maa ngi sante Yalla suñu borom man Sidi Diakhaté bu baax Yalla def na ni ama qualité de promoteur de la capitale du rail jóge na Thiès ñeu décentraliser ci fi ci département Mbour bëgg fa def sama ouverture de saison pourquoi parce que c'est une ville qui m'est très chère j'ai des amis j'ai des parents et tay ren Yalla def na.

sport traditionnel la ak euh, régate muy suñu foowu cosaan donc ñun lu ñu rawee grand prix chef de l'état Sidi Diakhaté am initiative bu toll ni jëlal ko boppam ni damay décorer fas bi nga xamante moo grand prix chef de l'état ak jockey bi ak propriétaire bi dañuy def lu dul lu ko parce que course hippique euh, sport noble la yéen gi am nañ ci ay jéego yu am solo yuñ ci dox parce que sur pour le développement de la filière équine dañuy dem jëndi ay étalons en France indi leen boole leen fekk ak suñu jument yi améliorer la la chevaline loolu moo tax léegi ñu am degré de sang yi fas yi di daw donc course dana gën a jëm kanam parce que facteur de développement économique la en France à part l'automobile moom mooy deuxième activité waaw donc euh, infrastructure rek moi de son excellence monsieur Macky Sall président de la république il a pose première pierre au hippodrome national. parce que nous, en tant que chef de chef de l'état suñu collaborateur tous mom daf ñu bi mu premier ministre bi mu président nationale. dañ ko daan dawalal chef de l'État, yi ci donc ak ay personnes au niveau de la présence. maître maître maître maître Souleymane Ndiaye ñoo ngi lay ziar. maa ngi leen lamb tey war a sargal course mooy ñaari sport culturel yoo xamante ne que duñu ko doon ci lu dagg morom bi la fekk euh, lamb ak course mooy suñu cosaan comme on a l'habitude de le dire ñun tey euh, dépaysé wuñu parce que Sidi Diakhaté mi nga xam ni moo organisé def lu rafet lii xalaat invité Oumar Bao tudde ko lamb. ndax moo raw grand prix chef de l'État Sidi dañu jàpp ni ñun ci ñun la bokk ndax bu fekkee ni organiser wul lu mel nii rek dimanche bu bu ñu toogee bu ñu geesoo gis Sidi suñu wet donc mu ne mu nekk mbégte lu rëy dañu ñëw ñun feddali suñu kóllëre ak Sidi moom mu jël occasion bi fas yéene ci sargal suñu rakk suñu xarit Umar Baaw mu doon ko xam ni liñ koy sargale tey jomb ko yàllaay maye nag dëgg la waye nak amna lo xamni li euh bu ci sa loxo yagge nga ànd ceeg muñ yalla wan la bopam oumar xam nga dafa war raw grand prix chef de l'État sañu ñu ko wax waye bu demee ba raw ka sañu nañu wax nak ni mérité nak en tout cas ñu ngi koy féliciter encore une fois mom xam na ni ndamam lolu ñun ñoko ci ëppalé waaw mu nekk nak lo xamni tay vraiment milieu turfiste yëpp bég nañ ci encore une fois merci lañuy waxaat euh, Sidi Diakhaté moo bi gàtt na waaye sincérité bi ci nekk yëpp ñu ko koy delloo tey. fas ndox la du bàyyi yoonam. Cotonou mii ñuy sargal fii tey maamam jaay na ba saw Kawlax la jóge romb Mbuur dem Dakar bi mu duggee Dakar étalon bu ñuy wax Beau Charlie moo ko jëkk a teg mu jur Toute Belle étalon bu ñuy wax Goliath teg ko mu jur Golden Boy étalon bu ñu wax Charpar teg ko mu jur Amira Wacky Martin doog koo teg mu jur Thiébo mooy Flavia mi jur Cotonou mii ñu jël ko teglu ko ci soleil de minuit mu mu jur Cotonou waaye laataa loolu toute belle mi ma la jëkk a tudd doomam la dugal ci Flavia mu jóge fa mu nekkoon delluwaat Mbaawo kon bu demee tey ba ab doomam di raw Grand Prix Mbaawo

John Kuat Saddezwele ko jur te étalon bi ñuy gën a coow ca France fi mu ne nii Saddezwele lay bàyyam muy Galileo kon Cotonou gàlliwul ba pare nag mu jël premier fas woo nga xam ni yaayam ak yaayu Cotonou bokk benn baay ñoom ñëpp Omar Bawo moom leen moo jël troisième muy loo nga xam ni élevage bu dox la waaye nag li ma jaaxal mooy élevage mi ngi dem bàyyi course ndax da ngay jënd fas vingt millions dawal ko ba carrière am jeex te doo ci am trois millions loolu fu mu jëmale borom fas doy na waa mon frère Bour ñu ngi Mbour. waaw mi da jël Farba Sarr. Euh, nee woon na jël Farba Sarr. Bour nag man sama wax boo ko commencé rek commencé le ministre Diène Farba Sarr da nga yàq wax ji parce que dootu mën a eggale parce que waa jooju mooy moo terminé lépp. mais tu es fidèle envers lui Noël Barra am na ñoo xam ne bu ñoo ñoom la sàq nañu. mais Bour loolu la ñu yàlla bindee fidélité. loyauté lolé aduna lolé gor jeun Farba sa daf ñoo téral téral wa kaolak lepp lu ko président de la République jox inna ko kaolak jeun Farba sa xamone un jour viendra yalla dina ko fay ku melni Ousmane Nawel parce que non la topé Macky Sall dem na def na lu né gem Macky Sall gemul keneen né Ousmane Nawel président Macky Sall bu baye ma baye ma koy gëreum diko sant diko ñaanal yalla li président dénk ko.

mu mel ni la défense de Paris lii la jéen wax keroog dañoo toog Paris mun Ousmane ne damaa bëgg dem ñaajo ak Lac Rose mel ni la défense de Paris nañ ko su ñaanal yàlla mu réussi di ñaanal aussi Siri Diakhaté ñu amoon téeméer yu mel ni Siri Diakhaté laa du daanu. fekk na la ba Kaolack sama kanam. ñu ngi waajal deuxième édition bi deuxième euh, beneen drapeau Ousmane euh, deuxième édition bi dinaa si invité sama jigéen ñi ak sama ñëpp incha allah rabbi et donc nañ ko waajal euh, di gërëm Siri Diakhaté yal na ko yàlla defal jàmm. le grand le grand mouvement de tous les temps. le mouvement le plus puissant c'est le mouvement MJKDFS Nous xam nañ ko moo mën Kaolack moo mën Ndakaaru ci tout le Sénégal et donc ñu ñaan président de la République na gën le doole MJK parce que bu doole MJK mooy dooleem bu que vraiment sommes dans Dakar Actu nous dañu avec la délégation Ejebaos euh, bu lamb ji Omar Sy sponsor officiel la ci mais man dama conduire plutôt euh, l'aspect politique donc ñoo bokk mouvement moy lu jot yomb di il y a plus de 20 ans mu nek un homme très sociable donc di yëngatu euh, véritablement ci société bourroise. kon tay bu Sidi Diakhaté ñëwee dëkk Thiès té ko sponsor donc dañuy contane motax véritablement son staff dans sa globalité nous nañu marquer leur présence

dañuy rafetlu li mu def content lool teewal ko fii également. Euh, salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu bon man la Moustapha Niang directeur commercial EG Boss comme ni ko le maire waxee tout à l'heure euh, dañuy ñëw euh, appuyer non seulement la culture sénégalaise à travers la lutte mais dañu ñëwoon aussi doon appuyer la politique du président de la République monsieur Macky Sall pour que nous puissions un toit au niveau du Sénégal Nous contribuons. contribuer ci nous à travers boss et notre président directeur général M. Omar Sy on a environ 2000 euh, parcelles viabilisées en Bambilor am nañ ci Ouest Foire aussi euh, derrière l'exclusive on en a aussi à Karak am a aussi un peu partout dans les régions au niveau du Sénégal en Casamance et dans le fleuve On a euh, képp qui am à travers le Sénégal et la diaspora ñi nos frères et sœurs on les invite à prendre contact avec nous et notre assistant technique à côté de moi va vous donner les contacts yi nga et nous ferons tout pour satisfaire vos besoins Nous jox leen ko et madame Dakfal. Nous nga ñëw wuy frère Siri Diakhaté ñëw wuy xam yàlla dafa def ay sportif lañu te lépp lu yëngu ci sport ci la ñuy bokk te Sidi Jaxate suñu waaye la tëggal naa ko làmba Ndar kon bu tëggee làmb mbuur dama koy uuji surtout que mbuur ñëpp samay mbokk lañu loolu mooy samay tànk. fu mouvement bi a ah mouvement bi moom macha allah fi mu nekk ñu ngi ci 92000 membres. ànd di liggéey rek di jàppale jigéen ñi ci loolu la ñuy taxaw ci lañu nekk. ndax parce man maa koy dégg fu ne ci Sénégal ah fan yële passé rek fekk naa leen Grand Yoff man dama ne monsieur Amar Fall lu muy waaj boog ak lu mu nar. mais non la ñu dara dañuy dañuy liggéey rek jàppale jigéen ñi jàppale askan bi parce que réew boo jàppalee jigéen ñi ak ndaw ñi rek mel na ni jàppale nga ñëpp. man fekk jigéen ña ca Grand Yoff ñu wax ma li nga leen defal pour ñu mën a soqale ku mën a liggéey sama bët moo ma ko may. waaw loolu dëgg la ci loolu rek la ñuy taxaw ci na ñuy yendu suba bëccëg guddi ak ngoon nga xam ne ñooy fàtteeku ak sama équipe yëpp lépp luñ fi xëyoo rek yow yaa ko def si li nga xam ne ñu ngi ñaanal yàlla lii moo tax le président de bureau jël na nommé la donc président Macky Sall bi ci bis bi tey ànd ak waa campement yëpp avec une très forte délégation waaw waaw ma honorable député maire Pape Songo Diouf moom lañ teewal fii tey si bis bi ndax euh, Sidi Diakhaté daf ko boole si invité d'honneur am muy honneur bu rëy si moom yitte yu bëri moo tax teewul ci bés bi man may directrice de cabinet ñëw teewal ko tey si bis bi waaw. waaye daal nii ngeen def yéen waa Camp. waa nii lañ def ndax euh, ki la yëg rek moo la sonal. donc euh, Sidi li mu def tay def ko département Mbour commune de Ngexo bok ci département bi muy promouvoir jeunesse Sénégal particulièrement jeunesse département de Mbour parce que ñun tay amoon nañ fi mbeur tay muy sowu Mali dañ ko daan mais il n'a pas démérité Nous koy encourager di ko féliciter nga xam ne mooy sama directeur di Bamba Gueye maa ngi koy nuyu bu baax a baax mi ngi RTS di fa def ay jaloore yoo nga xam lu wóor la waaye tey nag Sidi Diakhaté dafa def lu rëy dinañu si ñëw ak yéen bu ci kanamee tuuti waaye dafa ànd ak délégation bu am doole eh. ndax maître Souleymane Diagne avocat à la cour borom muslim ak Rikwanu Laay waaye borom Rayaan ak Muxsin ànd ak bàcc Diop Samba Koura ci réew mi te bu ñu ñëwee fii di wax waayu course war nañu fee mbaboor ba ñëpp xam ni Babacar mi ngi toog ba tax ma ne bu leen sonal béeroo njaw du mel ni lem غني غني غني انا صايم اليوم من انا عمر ما يصايب اليوم di aussi moom mooy Gassé Yaby di monsieur Siré Dia di suma xarit di suma doom lay Siré Dia maa ngi lay gërëm di la sant waa Thiès ñu ngi lay gërëm di la sant doomu Thiès ñu ngi lay gërëm di la sant grâce sous la direction de monsieur Mamour Thiaw structure yooyu may wax dañuy ma jàppale bu jàpp def suba ak ngoon ma leen di xamal ne Omar Bawa Junior yow mi nga xam ne ak Backe Diop ak délégation bi ngeen àndal fi ñëw kanamu moom mii la gañe ngi nii taxaw lan moo tax ma jël joke bi ak parfumé bi ñoom dama bëgg ñu représenté par suñu. waaw ñoom Senghane ñoom it ñi nga ñoom ñooy waa ñoom Baye Cheikh waa Sali yëpp yëpp ko indi ko muy daje kam. ah. Cheikh Omar combat noonu des grands combats drapeau de la LONASE war dox ci diggante Jules bu ak Lion bu Sali. Jules bu Mbour moo ñu wan ginnaaw noonu Cheikh Omar. mbaa dóor mu daal du am mën na am mën na am ah. parce que lion xeex bi la bëgg li ma ko gis muy appel gauche bi saa yu droite bi déclenché rek ah a wàcc. man damay ragal ñu rappel ko. gis nga loolu mën na ci am waaw loolu mën na ci am de ah Jules jël na tànk daan na ko. Eh, toos waxoon nga ma ko toos waxoon nga ma ko toos waxoon nga ma ko. yéen la daf na kàddu daanu na waxoon nga ma ko. waxoon nga ma ko ne woon nga ma il est intelligent waxoon nga ma ko toos Jules Bouteille daan na Ama Baldé numéro 2 fii la ko. Jules bu sali nax daan tey gis ngeen Lion Lion di raay Jules bu sali naxaat na ko gëmloo na ko xeex bi gëmu ko daan na ko mbok yi tey ñu ñëwoon Mbour seet Sidi Diakhaté production le promoteur di raay àndoon ci toute l'équipe Dakaractu waaye mention spéciale à l'équipe Dakaractu Mbour fële ca Ndakaaru Fatim Diop da baax nekkoon fa ànd ci ak Babou Mar Soxna ci journée Serigne Modou Niang drapeau Soxna Fall Fall Dakaractu fu làmb ne ci réew mi danañ ko indi jox leen ko kon ñun ak yéen ba dimanche.